بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي جلدي بكي طالبي في تيو نولي نيو كين كوتي نيك سي سوتور اك سي سانت دي زيار سونو كليفه ييغا خامني ньо في نيك دي دالي زيار بي تي سيغ جيلي ميغا خامني mooy sunu jëwriñ fii ci gox bi nga xam ne ah wax dëgg yàlla ban dalee ànd ba léegi ci ànd bu rafet sëñ bi mu ngi ñuy taxaw ci lépp lu ñuy def ci gox bi di leen ziar di yeesal suñu nuyoo ci yéen di fas yéene tàmbali ay kàddu yoo xam ne dañuy dénk sunu bopp di leen dénk li nga xam ne moom la ñu dër ci diine ñu ànd ci war koo mën a jëriñoo ñun ñëpp man li ma ci ubbee mooy dañuy nuyu soxna yow xamal leen ne bés bi wax dëgg yàlla yéen a ko moom soo leen wootee ba pare nit ñi teew te li ngeen ci bëgg jariñu dégluwul leen ko kon jotaay bi bu dee am njariñ it du doon lool ndax jëmm moom nit bu xasee ba jóg ngir dox ci li koy jariñ ci àdduna te sunu borom wax waxoon nu ne wax ñu te suñu borom subhanahu wa taala am lu ñu wax ci alxuraan ñu xam ko mu xamal ne sàkkuma leen ngeen ñëw fii ndax dama leen fee sàkk ngeen ñëw fii di fo te ngeen xam ne ñun ñëpp dañuy wëññeeku delluwaat ci moom jaam bu nekk bu xëyee war na jël loolu def ko mbubb sol ko yeesal ko di ci dox nga xam ne kon fo taxu ñoo ñëw ci àdduna rawatina nag kii ngeen kii ñu wax ne moom lañuy sant di xool jaar-jaaram ci diineem di xool nam mu daan doxee buñ dajaloo ba noppi war nañ mën a am ak dégg guñ ci jariñoo njëriñ li li nga xam ne moom la jaam yi war a mën a jariñoo ci njëriñam yaatu na lool daje def bernde séddoo kenn ku nekk jug dem lekk ba suur taxut kenn jug ndax boo xoolee mbooloo mi daan na ëpp lii ci njëlbeen loolu mooy li nga xam ne mooy liñ fi dajale ñuy tàmbalee wax wi ci li nga xam ne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci kanam tuuti dina ñëw wax ak soxna ye li nga xam ne moo leen di jariñ fii ñu nekk ak fan jëm ëllëg bala ñu ko tàmbali nañ tàmbale ci borom kër yi nga xam ne ñoom la yàlla nattu ñu yor kër yi di yar njaboot gi di yor soxna yi ndax borom kër kat am na lu ko suñu borom dig ci njabootam ndax nee na leen kat kenn ku nekk dinaa la laaj la ma la dénkoon nanga ko yore dina laaj boroom kër nan la yore woon njabootam ci biir këram dina laaj soxna nan la doon nekkee soxna boroom këram ci biir këram laaj googu nag kooku ci wax mu yaakaar ne ay léeb la ak léppi ndax yàlla de suñu borom subhanahu ku noppi la ci ñun misaal yi xew ci àdduna tey ko xool xam ne bu la ne bu ëllëgee dinaa la laaj te di ma tontu war nga koo gëm tey boo duggoon tey ci internet bi léegi léegi archive boo xam ne 1950 la woon dañ la koy tegal léegi nga di ko gis te borom faatu na bu yàgg ku la mën a wan loolu ci te doomu aadama am xelam def ko suñu borom bu la diggéey bu ëllëgee ne dinaa la laaj lan nga ma doon liggéeyal ci kaw suuf war nga koo mën a gëm ndax lii doomu aadamaa ko def te bu ëllëgee suñu borom kon kam la booleel ñoo nekkoon sa nawle muy ñan muy ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow di bind li ngay def kii ne ci ndeyjoor di bind yiw kii ne ci càmmoñ di bind safaan te ñoo góorgóorlu ba sunu yiw ëpp sunuy safaan ndax gannaaw boo beefee benn yiw mu nekk fukk nga def safaan ñu xaar tuuti soog di ko bind waaye waaye nañ góorgóorlu suñu diine bu baax a baax nanu delluwaat ci téere yi jàng kan mooy kii ñuy liggéeyal kan la moom de ba mu fiy ñëw fowul folowul fowul folowul ñun nag ñoo jël taaru àdduna léegi ne dañ koy wootee di liggéeyal diine buñ dajaloo lekk naan te duñ fa jële lenn lu ñuy jariñ nañu dellu xam ne àdduna bii ñu nekk ñaar rekk fi nekk jaamul yàlla ba yëg ne tey ngay dee liggéeyal ba yaakaar ne àdduna bi doo fi jógee ñaar yooyu rek noo ci nekk te leen lu ci nekk it da nga koy sellal teg ko ci diine teg ko ci islaam bu set wecc nga xam li la ci sunu borom digal nga di ko ci def lam la ca tere nga di ko daw sa kem kàttan loolu mooy li nga xam ne moom la sunu borom digal ñu war cee nekk borom kër yi nanu xam ne réew mi xat na fi ñu nekk ndax fi lañ mën a waxee kër yi xat nañ dëkk bi xat nañu ñu jël li gën a yéeme jox ko jigéen ci miim réew muy kàddu ak doole jox ko jigéen ak gone ci nga war a defaree sa àdduna muy ab soxna ki nga war a dimbali mu jëriñu ëllëg muy doom ñu jël kàddu ak doole jox ko soo gàttee xel topp leen ca la leen neex bu ëllëgee a ah, di nga am safaan sa diggante sa borom te lu jara bayyi xel la lu jara bayyi xel la ndax kat buñu topé ñi ñu fekk si dé ñom ni ñu mel mel nañ ko ba nopi cheikh ibrahim jaay dégg ci kaddo mi sel yu muy faral di wax na or bo ci ñaké sa njeexa njeexaatum përëm ci ñaké sa lamu or jaru ko muy boh hamne xamné dégg bi yomb na wante jëfé gelu dis la ndax wax du yalla kaddu go la man bama ko dal dégg bu diko wax ba dama ci bayyi xel sa su nañu xolaat liñ taxa jóg nañu xolaat ki ñu yaakaar tey ak ëllëg nañu xolaat ca lamu nekkoon lam ñu bindaloon tegal nu ko ku tedd ki wàcc naag ñun yàgg na woo woo na ndaw ñi wax ak ñoom woo mag ñi wax ak ñoom te kenn ku ci nekk lam la teg mooy li lay jariñ ëllëg li lay jariñ ëllëg fii nag ku fi bëgg lu neex ci kaw suuf ah, am naa yaakaar ni soo wéeteeg sa borom di nga góob loo xam ne dina la naqari lool nañu xolaat li señ bi nañ delwaat ci téré jang alquran nañu xamaat lan moy khasida yi lañ xam lan lañ ci wara jang diko jang lan lañ ci wara def diko def liñ suñu borom digal ci alquran ñu diko def suba ak ngon? ndax mënuma nangu ne yow kat ku tedd ki nga yaakaar diko ko liggéeyal ne moom ab talib nga te benn waqfu alquran sax do xey jang ko waqf doo jang ko loolu lan yaa sa yitte ñi ci melni man bu nu xëyee ñu ngay lijjanti am na ñoo xam ne sax maanaam wàllu loolu ñuy def ci télé yi la ñuy lijjanti am na ñoo xam ne émission sax bu jotee ci télé li ñu njëkk a def mooy bala ñoo jaamu suñu borom julli bu jotee bala ñu ko def dañ naa xaar ba émission ba jàll ñu soog di ko def mu doon loo xam ne àdduna yi kese la daray suñu borom nekku ci rawatina soxna yi rawatina soxna yi lool tey boo doon def xam lu ñuy wax dañ naan la jamonoo ko laaj waaw ah jamono de lim laaj yàgg na tey déglu naa xasit bu wolofal bu sëñ Abdul Ahad Jóob la xaw ma doon def wolofal fi sànq mu doon wolofal bu am solo bu nit ñi bu ñu dégg wax ji rek daanu ci and nañu dégg kañ ko doon waxal kan la ak fan la nekkoon kañ ko doon waxal mu nekkoloon fi sëriñ Touba daan ko liggéeyal daan dem ba turum sax su ko déggaan da ciy sant mu doon koo xam ne yar na ay ndaw defar leen ci lépp boo demee ba ñuy wax tey ay wolofalam di ko di ko di ko jooy di jooy ñi fi jaar ñëpp war nañu mën a xool kooku la mu daan liggéeyal yàlla la mu daan def lan la bu buñ koy roy nañ ko roy ci la waan bu ñu roy ci nañu ëskay rek ëskay sëñ bi baax na lool waaye na fekk yow nga nekk ci ëskay ndax yow boo nekkul ci ëskay noo am ëskay waaw nit ki il faut euh, sa sa nite sa nite kenn du la ko defaral yaa koy defaral sa bopp nite nag weesuwul nga xam-xàmmee ne lii jomb naa koo def lii duma ko def lu ndax euh, mës naa dégg ñu ne génn kilifa dañoo ñëw di ko jooytu naan ko ah sëñ bi de euh, Touba daa bëri ay ayib léegi daa bari ñu fay def lii daa bari ñu fay def lii ba yàgg mu ne leen mu def ko ak tàngoor lool mu ne leen suuf suñ doon defee lu bon de amul wante ku dul def lu bon am na kon fexe leen ba bokk ci ñu ko dul def moo gën jàmbat li xam nga kon boo ne sàngam dañ fa def nangam béréb sàngam nangam nangam bëgg naan nangam bi im nit ki yow fexeel ba ne yow lu bon loolu man duma ko def mukk kon di nga bokk ñi nga xam ne dañuy sell ëllëg ñu ngi leen di ziar leen balu àq di ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fan yii te barkeel liggéey bi ah liñ ci jël kàddu dañ doon ubbi rek ndax suñu sëriñ dafay nekk muy Cheikh Ibrahima moo yor waxtaan wi dañ ko doon ubbil yàlla na yàlla na ak sunu mbokk njóobeen li nga xam ne daanaka ñooñu moom ah wax dëgg yàlla ñu teral leen ci bés bi te xam ne wax dëgg yàlla nañ sant yàlla bu baax lii man li ma ci yokkaat mooy nañ ko xool ci bañ koy soog a door ñu tàmbali woon ko ci saal bu ndaw jéem ko mu doon lu ndaw wante pour xamal ne liggéeyal ku baax boo ci dëggoo day dem ba yéem la daaw ñu def ko mbooloo mi bari lool ñu ñu dem ci ba tey tey xew-xew yi daje mun naa am mbooloo mi bariwul wante rafet nañ njort nañ njariñ a ngi ci biir kon nañu xam ne rek lépp looy def ki nga koy liggéeyal faw mu natt la ba xam ndax li ngay wax dëgg na ci yow wala déet buñ ci nañu jàppaat gën a rafetal suñu diine gën a góor góorgóorlu ci kër yi gën a góor góorlu ci njaboot gi gën cee sonn surtout njaboot yi nañu sonn ci njaboot gi njaboot gi de ah amel nañ leen àq de indi fi sax njaboot ba ko maanaam mbayal laa ko mën a dégg ndax mbayal la xale bu xëyee li muy ne ci yow moo ëpp moo tuuti li muy nekk ci yeneen loxo xale bu xëyee suba nga école balaa ñëw tàkkusaanu suuf yow li nga ciy jot du bari la nga cay def du bari bu fekkee amoo jotu mën koo tegtal ci diineem mu amoo jotu mën koo yar ci sa jikkoy bopp am na yaakaar ne xale boobu bu xëy liggéey lu mu def yàpp ko def loo ndax tamit doone rek dafay jàng da ca tool am na ci ñoo xam tey boo jëloon seen doom tey bëgg leen jàng alxuraan li ñuy njëkk wax dafa war a football lañ lay wax